voilà mbokk yi ñu fas yéene def taxaw seetlu maa ngi taxaw coach su Cheikh euh, alors maa la siyaar. maa lay mon frère. nan nga gisee journée bi d'une manière générale. waaw euh, journée bi dama naan euh, le promoteur def na li nga xam ne moom moo ko war mais boo gise mbër yi am na tuuti manquement parce que mobilisation bi gars yi waroon def xam nga nga tëgg ki nga xam ne moom mooy Gora Sock Tyson 2 dëgg ki nga xam ne doomu Dangu ak ki nga xam ne mooy Feu Rouge. tëgg ki nga xam ne moom mooy euh, Nguer ak Franc je crois que mobilisation bi waroon na gën a demee nii mais nag dañuy naan peut-être xëy na làmb suba bi moo tax mu demee ni mu demee mais di wax rek que ne euh, ak nu mu ci demee bëri gis nañ fi combat yu neex waaw. mais tey est du làmb joo xamante ne ñoo ëpp doole daan par exemple Nguer ak ki nga xamante ne moom mooy Franc gis nañ ni Franc may ko dara. foofu noonu dama naan euh, gars yi dañoo juum si ni ñu waroon boole ñi ñu waroon boole. dañoo waroon boole ki nga xam ne moom mooy ngeer ak ki nga xam ne feu rouge parce que boo xoolee mais nag bu ñu yeggee si hors catégorie foofu dañu naan pois amatu fa loolu parce que bu dee lutte euh, africaine bi dañu naan boo amee cent vingt kilos boo ko dépassé dañ lay disqualifié mais comme tant yaa ngi si hors catégorie bi rek poids bi du du du du du compter quoi. nga xam ne euh, moom mooy góor sook boo xoolee neexoo nañ. te bëre feeñ na te weccoo nañ ñoom ñaar. mais est-ce loolu mu def wóor na. daw jëli ji waa ji ërtal ko kut ko kut. waa xam nga man mënu ma comprendre nga jëli nit mu fàq la. yokk la xool arbidi yi. arbitre ne dara amul mu dolli la arbitre suuf lañ ñëpp jóg taxaw. ngeen dellu siwaat mhm. euh, dama naan daal euh, il faut que arbitre yi ñu gën a vigilant mhm. parce que am na yenn yoo xam ne yàq journée la yàq préparation mbër la yàq moralu mbër la parce que tey boo songee nit ki yegg ko fenn fii ñu kase li nga xam ne moom mooy chute euh, bi arrêté euh, boo leen dellu soité amaana doo ko yegg foofu kon je crois que arbitre bi balaa ñoo teg loxo nañuy bàyyi gars yi ñu yeggale ñu bëre ba jeex bëre ba yeggalee parce que lamb quatre appuis daf si bokk c'est bien vrai mais am na quatre appuis yoo xam ne kenn du ko naatable mais da bàyyi mbër mi mu yegg mboromam fenn bës ko ba mu tëdd nga door a soufflé loo si mën a dégg daal xam naa ne euh, mooy lamb ji Tyson 2 xam na li ko yoon may dina ko def arbitre yi jox nañ ki nga xam ne moom mooy Gora Sock victoire ñu koy féliciter di encourager ki nga xam ne moom mooy Tyson 2 di encourager ñi daanu ñëpp di wax làmb noonu la toujours am ñu daan am ñu daanu. Franc fu mu jëm. Franc si gars yi joxaguñ ko adversaire am. ba tey Franc dafa war a bëreeg rëg rëg. Hmm. Franc a ngel jonnu. Franc dafa war a bëreeg ndaanaan yi nga xam ne dañ fi nekk parce que dafa bokk si làmb ji te xale la te si kaw dafa manqué ay mbër il faut que gars xam li ma la jox ko sansam doomu daangu moom fu mu jëm. doomu daangu tamit ma nga ca kaw doomu daangu Franc combat la làmb ju neex la. parce que ñaari ñaari ñaari loolu lañ gone yooyu dëkk kii la. ñaari lañ. te dañuy xeex dañuy bëre. taw feex ak tay sir Cheikh kontaan naa jërëjëf merci jërëjëf alors mbokk yi comme ni ngeen ko gisee noonu la ko ki nga xamante ne moom la coach Cheikh waxee muy comb combat yoo xamante ne neex na mais lenn la ñuy déplorer mooy ñi nga xamante ne ñoom ñooy mbër yi mobilisé wuñu te du yoon alors ki nga xamante ne moom mooy Gora Sock ci luur bu toll ni moom mu ne day song waa ji kut ko kut parce que nee na waaj ji boo ko bàyyee ba mu ne diib du neex a daan bon dañ ko koy concédé mais aussi luur gars yàgg nañoo wax ni du ñu déplacé wu moo taxit gars yi naan rëpp na ak rëppul quatre appuis am na amul alors ñu koy féliciter rek parce que arbitre nee na moom moo daan ah, daan na aussi chute bu leer a leer moom góora a di félicité Franc xale boobu nga xamante ne parcelle la nekk yaakaaru parcelle la yaakaaru làmb la moom Franc alors naka gars yi jël parce que mbër la boo xamante ne kenn waratu koo bañ doomu daangu nag aussi ñu koy félicité borom góos gu saf gi képp koo xamante ne. am nga looy sóor ci xeex bul jël ki nga xamante ne mooy doomu dàngu parce que loo ci mënta wax bokk yi da lay dóor da lay dóor moom ki nga xamante ne moom mooy doomu dàngu ñuy félicité ñëpp. di encourager équipe technique bi nga xamante ne ñoom lañu ñu àndal di féliciter encore une fois Fallou Ndiaye journée bi rafet na juste que li ñuy déplorer encore une fois mooy mobilisation bi mbër yi war def mais moom en tant que promoteur ak staffam def nañu lépp loo xamante ne war nañ koo def di féliciter aussi CNG di encourager ak lu làmb di leen féliciter di leen jox di dagg très bientôt ci beneen numéro taxaw seet peace